<laughs> asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum waa Sénégal man la Thioune Mbir borom kontaan naa am na kontaan naa ci mi gars dafa am benn waay boo xam dane daa dugg seen groupe WhatsApp bi di wax ak may mën a nur waaye nag ginnaaw ba ma koy ba ma ko déggee maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom may ak yëkkati déglu leen ko déglu li waa wax. Ousmane Sonko moom leen laa ñu wax Ousmane Sonko képp ku ko bañ doo am jàmm Macky Sall mi sax amul jàmm. dégg na Ousmane wax ne la appel tune bi ah déglu leen ko tey déglu leen maa moo woo ko ko kontaan naa ci abonné ak semi waaw borom contrat yi borom contrat yi moo leen may appel tune bi saltige borom contrat yi déglu maa moom salaamaaleykum allo waaw na nga def maa ngi siyaare waaw maa ngi delloo siyaare mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm baax baax waaw mu ne damaa bokk ci groupe whatsapp président Ousmane Sonko 2024 démb nag ma déglu sa benn audio ci guddi gi bi nga naan Maimouna Maimouna mooy kooku ñu agressé ma dégg nga naan dafa bañoon Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ku ko bañ doo am jàmm waaw ma déglu naa ko ma ma rafetlu ko bu baax ba nga naan Macky Sall sax amul jàmm kon xam nga ne maa ngi doon déglu waaw naka sa audio dama koy topp lu bare bare ci ci groupe ndax wax ju am solo ngay wax nga dëgg wax nga dëgg politique la affaire politique la de dëgg la politique la quoi dëgg la mais waaw audio waaw ah yow la waaw waaw man la commanda bu Birkat recette commanda Birkat recette waaw sa audio dem bi ko dégloo ba ko ci ordinateur ba ko démb woon nañ ñeenti commandant yoo xam ku ci nekk bi nga ñëw bi ñu tege si audio bi mhm. biñ ko jàngatee ndax Issa dañoo nekk ci enquête pour xam ki jam ki ko agressé waaye biñ ko dégloo déglu say audio mhm. ñun commandant ya fa dajoon yëpp xam nañ ne yow laale nga ci mbir bi allo waaw a waaw xam nga tëdd sama ndey te fépp ma ko def daf xanaa ko ñu euh, xam nga tëdd wuy bi. ma nga ñun dañoo dem jàngi suñu xam-xam ba yàlla def ñu doon ay commandant. waaw dama dama dama ah, bi. waaw man dëgg dina dem ay rek ay jëmi sax man man ma ne parce que Serigne Touba Mbacke man sama nekku ci billaay waxuma ko yàlla xam na ne bi. léegi teel eh déglu ma waa déglu ma déglu ma eh eh déglu ma waa léegi déglu déglu sa téléphone bi téeko nag téeko ñi ngi xoolaat audio yu baax li nga wax dinañ ko déglu du fekkee loolu nga wax du ma la waat waaye du fekkee loolu nga wax foo mën nekk danañ la localiser jël si la dégg nga wala déggoo ma